RFM matin bi ñuy amal ci màggal Touba 2020 gi ñuy dëgmal talaata sunu gan tey euh, Abdou Mbacké Ndao salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. yaay euh, maire Mbacké di dëkk boo xam ni mook euh, Touba dend xamees na ko ngay doon itam sët ci sëñ Touba ndax sa wayjur wu jigéen sëñ abdu borom dër bi di doom ci sëñ Touba mooy wayjuru sa jur wu jigéen. ñu ngi lay gërëm ci ci teewaay bi monsieur le maire euh, daaw daje woon nañ fi doon waxtaanee ay mbir yu soxal dëkk bi di Mbàkke nga xam ni yaa ko jiite doon meer bi euh, waaye ren nag damay seq waxtaan week Pape Bes di bàkk Makumba Bey euh, ci lu gàtt rek ndax waxtu wi xat na ci yitte yi nga xam ni bi ñu yegg see Mbàkke dégg nañ ko muy yoon yu ci dëkk bi nga xam ni bëri na yu ci baaxul ak gone yeeg seen stade bañ nii Euh, lañ ci digg woon gisuñ ci dara ak yeneen yi looy njëkk tontu ci loolu. li ma njëkk tontu ci yoon yi mooy mat na ñetti at euh, njiiti réew mi joxoon na ndigal pour que Promoville def juróomi kilomètre ci Mbàkke juróomi kilomètre yooyu tàmbali nañ ci un kilomètre deux cent mu jige ci jàkkay tukkulóor yi pour dem ci yoonu Sancaan parce que dafa mbedd moo xamante ni bu xasee taw kenn du fu mën a jaar ay milliers de personnes ñoo fa jaar mooy yoon wi ëpp fréquence ci Mbàkke biñ ko tàmbalee toog nañ un an et demi door ko reprendre ce qui veut dire que. kon nguur gi lay joxoon ci loola. am na retard bu extraordinaire bu ci am. ci leneen li ci des mooy biir centre ville bi bu tawee day taa. motax ñu jëlone en compte euh, rue yépp nga xam ne dañuy waxoon dafay am tali ànd ak assainissement ak éclairage mais ñetti at ci ren dara avancé wu ci. kon hmm. nag neexuma man mi nga xam ne man la ko chef de l'état waxoon mais aussi neexul population yi. Hmm. da ngay li ngay ci jànge rek mooy am na volonté joxe des instructions fortes et fermes mais nag mise en exécution bi.

ak bu mairie déjà FERA muy fonds d' entretien routier autonome recruter nañu 50 agents yoo xam ñi nettoyer yu ànd ak deux superviseurs. ñooñu koy xanaa tonni suuf si ci tali bi moom la. maa ngi ñëw ndax mën leen utiliser ci yeneen liggéey ci lu jëm ci euh, tonni suuf si ak li wër tali bi beneen bi ci des mooy UCG ñu ngi fay liggéey beneen bi des mooy ñaari camions yi fonctionnent sept jours sur sept. xanaa dafa doyul ndax mbalit mi moom am na. mbalit am na li li li waral euh, mbalit moomu du mbalit mais ay mécanicien la yu installé wu ci rue yi la te yàgg nañ fa. solution bi ci am bu définitive mooy fi champ de course bi nekk dafa nekk 12 hectares et quelques ñu jëlee 10 hectares jox ko. Un projet bu ISEP un institut d'enseignement professionnel financé par la KfW la coopération allemande autour de 7 milliards 2 hectares 400 hectares, il faut que nous pour recager les artisans nga xam ne une solution définitive ndax lenen lo def rek bo len déplacé amo fo len yóbbu. ma waaw monsieur le maire ni nga ubbee say kàddu dafa mel ni sa diggante ak euh, nguur gi bu fekkoon lu ñuy defaat doo ko defaate noonu sa collaboration ak ñoom est-ce que fi mu ne nii bu ñu ko doon tàmbaliwaat nii nga koy defee. waaw xam nga collaboration bi mairie démembrement état la li nga xamante ni moom la mairie dundee ci ñetti bërëb rek la ko mën a jëlee. li tax ma kumba laaj laaj bi mooy mbiru euh, euh, li ñu njëkk a tali yi. nga ni njiitu réew def ko diggoon mbacke digle ko te gisoo te yow da ngay jappale njitu réew lolo tax mo laaj lolo waaw motax man len njitu rewmi njiitu réew mi dafa joxe des instructions fortes et fermes devant moi ci autorité bi ko wara def mais depuis trois ans amul évolution dañu gis yeneen dëkk yëpp seen euh, programme yi am ci promo ville mi évolue di dox ñun nag mënuñu lu dul en tant que premier magistrat li nga xam état réew mi da ko moom muy xaalisu réew mi njiiti orientation yu mag pour ñu exécuter ko ñun ñu le maximum possible. Promoville mooy Mansour Faye rëccuwoo maanaam euh, ànd beeg Macky xam nga ñun benn objectif la am mooy alal ji réew mi ñëpp ñu fexe ba am ci ay cër ak domaine bon def li mu war def njiiti réew mi wax ma dégg joxe des instructions ma dégg donc bu exécuté wul donc mën naa ko bañ a imputé mais aussi mën naa ko imputé ñi nga xamante ñooy responsable yi ko war exécuté mais nu ma déggee ngay wax est-ce que nekkoo di justifié wu sa ci euh, ànd gi nga àndoon ak Macky Sall te xam ne waa dëkk bi moom Macky Sall euh, jubluwuñ ci côté dara dara dara dara ñu ngi dem ci élection locale nga ne daal bëgg taxawaat ne mosoo laal ak Macky Sall est-ce que nekkul du da ngay bëgg rëccu comme ni ko saay waxee di justifié wu ci ànd gi nga non man du ma justifié wu ci dara aw ma lu may justifié. ndax di kan nga nekk candidat maire. damay nekk candidat ci mairie de Mbacké. waaw eh, mairie boobu ci boppam am na ku naan Ibrahima Diop dañ koy faral dégg mu yëkkati tuuma teg ci sa kaw ci yore numéro bi tuuma yooyu yeesal na ko bi ñu yegg ci dëkk bi fii. Euh, ci ay luubal koom geek suuf sooy jaayaat loo cay tontu. ba xam nga dafa mairie dafa am lu muy doxee li muy doxee coow loolu mi ngi commencé depuis presque ay trois quatre mois loolu règlement de compte la par rapport ak man ak moom li muy évoqué lépp évoqué na ko réunion de conseil municipal bu yàggul bii bi ñu def euh, mardi passé devant tous les conseils ñu xamal ko ne ko bu fekkente ni mënoo lire wala mënoo comprendre lan mooy compte administratif da ngay laaj ñu xamal la tous les conseils étaient là-bas ñu xamal ko ne ko amul benn dërëm boo xam dana génn ci trésor public lu dul dafa nekk ci responsabilité personnelle et pécuniaire du payeur te pour paiement mën a il faut mu am des documents justificatifs buy wane ni li dañ ko exécuter war ko fay benen ba ci ci walu souf dafa am lu impôt et domaine ak cadastre ak service de l'urbanisme ñom ñëpp ay ndawi état lañu ñu seq dëkk bi ak le préfet qui est l'autorité administrative donc Mbacké amul sax souf so mën jël diko jaay c'est des lotissements anciens motax ya de cela trois ans

dama bañoon sax ba invité waa Descos pour que ñoom ñu ñëw indi seen expérience impôt domaine était présent cadastre urbanisme ak les délégués de quartier ak les personnes ressources yi nga xamante jàpp nañ ne ñooñu war nañu ma indi seen xam-xam pour ñu mën a def liggéey boobu. ci loolu. <laughs> mais euh, maagale tuuti. ci loolu li produit nañu ci benn procès verbal amoon na retard nag ci procédure mais instant bii ma lay wax. matagul un mois def nañ ci benn réunion toutes les parties prenantes étaient présentes pour que ñu recenser waat li nga xamante ni mooy dëkk bi mën a xam li nga xam mooy li existant li des ci kenn dëkk ko ñu mën ko réaffecter. mais monsieur le maire est-ce que yaakaar nga ni sa bilan baax na pour mën la mayaat nga falawaat. rajo laay wax amul benn maire au Sénégal benn laa wax 557 maires Sénégal amul kenn ku mën a taxaw présente un bilan aussi positif que Binyam. Amoud. Bah nous, de sët nga de waaye itam loolu lamboo politique. non du waxi politique parce que vous xoolee si vous trouver ab commune boo un déficit de 115 millions de francs CFA avec des dettes nga ñëw en deux ans apuré admissible au PACASEN def des réalisations qui santé quatre postes de santé équipés envisager un bloc opératoire et une imagerie moderne au niveau du centre de santé. Réhabiliter toutes les écoles de Mbaki, informatiser les directions. un rhizographe avec une capacité de 10 000 copies par jour. Interconnecté. Avec d'autres infrastructures, maintenant, une émission spéciale sur nos réalisations. pas euh, depuis ce ce bi la falee maire bi léegi bloc opératoire boobu ngay wax pour centre de santé bi yang koy évoquer yenen suñ waxé bilan bi aussi ndaw ñi so démé ci ñom yow sa problème ak ñom aussi bari na trop nemeeku nañ né sa final coupe du maire do fa teew sen subvention yi dang koy doo doo da nga koy yéex a joxe dañ ci kaas ba sonn bay yëngu di yëngal bu yëgal di di yëngu bu baax a baax a baax ngir nga jox leen seen i seen subvention ak yeneen yoo xam ne nii aussi euh, surtout jeunes yi ñoom gisuñ ne ce bilan euh, luñ mën a ànd yow la. je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé ndax kon dafa mel ni yow da ngaa da ngaa dëkkatul Mbàkke

du fa dem. mooy fu njëkk fa. fu njëkk fa du ma fa dem fi ñu delloo Touba. waaw foofu am naa droit man foo xamante ni sëñ Touba fi mu feeñee jamono ak fi ñuy footballé matul 100 mètres taaw Mouhamadul Kabir mag doomi sëñ Touba yëpp ak soxna Fatima. fa la tëdd fa la tëdd. maam Mor Diarra moins de 200 mètres Mouhamadou Abdou Khadir doomi sëñ Touba moins de 200 mètres Mouhamadou Yar moins de 500 am naa droit man du ma fa dem mais lañ fay war a dem lépp dama la ko jox te boo laajtee. man nga génn nga interroger président ODCAV Modou Ndiaye depuis trois ans amu ci benn yoon boo xamante ni subvention yi dina am retard d' accord deux premières années amoon na ay jafe est ce que ren ak li ñuy euh, lay yëpp ne euh, jamono neexul ak coronavirus gi nawetaan amul gaaw di nga joxe subvention non duñ joxe subvention parce que quatre millions yi nga xamante ni prévoir nañ ko pour des subventions dugaloon nañ ko ci li nga xamante ni mooy xeex

le peuple sénégalais est souverain au moment venu ñoom ñooy décider liñ ñu bëgg a décider. yow looy décider laa wax. man li may décider kooku man la concerné. Hmm. moom la li may décider kooku sama mbiri bopp la. Hmm. Hmm. Eh, bu ñëwee ci wàllu Touba am na ñu wax ni fim mu ne nii war nañ koo def comme Pikine maanaam dagg ko ay villes yu bëri Daaru Xuddoos ville boppam Daaru Marnaan ville boppam ak eh, yeneen i koñ yoo xamante ne nii yu rëy la loolu yaakaar nga ni mën na leen a jural njariñ waaw xam nga touba dafay dëkk bu spécial ngeen bàyyi xel ne suñ modu mi ngi ko 400 hectares initiales, actuellement nous ci 30 quelques mille hectares de titres fonciers. donc kon avons pour nga bëgg ko morcelé ay une région kooku un domaine nga une sa commune de touba mhm. mi ci 30 000 hectares de titres fonciers immatriculés donc moi, tax loo fi gis ñu def di am titre bu spécial léegi nag bu féké da nga bëgg dañu bëgg découper ko nak kooku benen traitement bu spécial lay don parce que nature dëkk bi moo non, noonu. Pabès. do amone na fi aussi don nañ ko wax ci temps wu ay euh, maire Iba Guèye genre communauté urbaine entre Touba et et Mbacké parce que gis nañ né bari na ay infrastructures yu nekk euh, Mbacké. waa Touba dañ ci euh, bénéficier wu ñu mën a waroon a xool euh, nan la ñaari euh, entité yi mën a jaxasoo ngir mën a jariñu ñoom ñëpp ko waaw loolu laaj mooy intercommunalité. intercom liggéey nañ ci ba sar nañ ci lool d'ailleurs déjà y a projet en cours boo xamante ni li ci amoon solo mooy waxtaan naa ci ak ki nga xam mooy sëñ Muntaxa Xaadimu Rasuul leeral naa ko ci lu baree baree baree bare waxtaan nañ aussi ak ki nga xamante ni mooy Ahad Ka di maire Touba waxtaan nañ ci ba nañ ci loolu ndax munta ñàkk ndax Touba titre foncier global la am boo amee un projet privé boo xam ne dafay demander du foncier mënoo ko implanter Touba c'est pas possible li moo tax Touba yenn projet yu bari da koy rëcc benn 80 pour cent des élèves de Mbacké viennent de Touba bon, 60 de prestations sanitaires au niveau de nos structures de santé c'est les populations de Touba parce que la position géographique de Mbacké. ñi Touba di di service voilà service technique yi toutes les activités de loi